ñu ko toppoon ñëpp ñëpp ñëpp dee nañ nañu def ba noonu de parce que li ñu yaakaaroon ci moom perte nañu ko ñuy dund dund boo xam ne dund were yàlla deewoo dundoo perte maa la moo tax ku gis ci àdduna doomam boppam ndey doomam boppam baay doomam boppam waay waay waay waay demal sa bopp gis nga nga ñeme ko ak nga ragal ko ñoo yam ñeme ko rek eh, dana dana métti nag eh, ibtidaan ibtidaan dana métti ci njëlbeen gi dana métti parce que pour nga beru dafay metti mais nag soo demee ba ca biir ci ngay xam ne nekkee moo gën toppe pexe amul pexe su ko defee nag ah kii naxe moom bu sañoon di ko topp du wàññeeku jamais te kat gis nga euh, bés bu jot mu am lu mu la gëmloo wéy defal nii defal naa nangam nangam ku am kër gi am nga lii te yow sa doom li nga may def loo du ko def li nga may def du ko def lu tax kon li nga ma wax ne ku ko def ci kër gi dina am may yi te sa doom amagul may ya te sa doom bokkul ca ña koy def kon nag maa bëgg a nax damay lànk su fekkee nag sa doom dafa bokk ca may ya nga xam ne suma ma yaakaaree dina dëgër su ma defee dina dëgër ndax maa moom ñooy bokk di def di moins naxe rek naxe rek naxe gis nga corona bii dama leen koy wax gëmu leen ko du ngeen ko gëm nag léegi waaye da ngeen ko gëm billaahi ku teelu na wàññeeku teeloo seet ku wóor teeloo xool lu leer nga jàpp ca danga ko rëccu ndax feebar bu demee ba dox sa diggante ak sëriñ bi soo ko yaakaaree di ko jege mu ne la sori ma te nga yaakaar ko yowmal xiyaam bu la neexee ca su la neexee topp ko yaa xam i fii ci àdduna ma yaakaar la ñëw tàllal la loxo nga dawma ma muur sa bakken ba ci sa gémmiñ ndax benn feebar mënuloo ci dara mënuloo ko dara mënuloo ma dara ñun ñaar ñépp ah nit ñi dañuy fontu rek dañuy fontu rek lañ maa la ko wax am loo xam ne nii nag yow yaa koy xam waaw nit kee koy xam gis nga mbir yi kenn rek moo ci man dara mooy sunu borom moo tax man damay wax ni ganaaru kenn dama nenul ginaaru kenn ku dul yàlla subhanahu wa su ko neexee mu wolbati sa baat su ko neexee mu doxal sa baat su ko neexee mu yàq sa baat kooku moo man ci man dara waaye mag ki nga xam ne naka yaram wi baa mu ngi tane baa yaa ngi tane baa feebar bi noo def nangam nangam kii mënul ci man dara nanu bokk wóolu yàlla nanu bokk jaamu yàlla su la naqaree bés dina ñëw mu neex la nga tëdd ci du la jëriñ ala kulli xaalin bés dina ñëw nit rek lalam rek yàllaam rek aati farda aati fardan nee li ci gën a yéeme su ngeen di ñëw ci man kenn ngeen di doon yéen ñëpp yéen ñëpp a ci yam par kenn ngeen di ñëw kenn mënu ci pexe waaw yow xam nga ne kenn ngay doon booy dem ci yàlla soo koy wuyu ji yow rek kay dem doo defar sa bopp waaye nga nekk fii di dof-dof ngay defar sa bopp mu bañ a nekk dof aati fardaade moo tax feebar bi waxoon naa leen ne man corona jaaxaluma ok corona jaaxaluma après corona moo ma jaaxal jaaxaluma corona jaaxaluma mais après corona lan mooy xew c'est ça ay corona nekkul sama problème moo ulcère laa yemale moo cancer laa yemale moo Ebola laa yemale moo tous les feebar moom laa yemale parce que kenn rek moo ko wàccee ci kaw doomu aadama yi kenn rek moo ko mën a ci kaw doomu aadama qul lan yusibana illa ma kataba lahu lana wa mawlana qul lan yusibana illa ma kataba llahu lana huwa mawlana feebar ku ko neexaw la koy teg ki la yilifu nekk di wàcc feebar ci kaw ka ko neex sooye boo nga déggoo ak moom déggoo ak moom soo ko deful coono la lay jural soo ko deful fitna la lay jural boo ko deful nattoon lay jural waaw lan yusibana illa ma kataba lahu huwa mawlaana huwa mawlaana waaye nag <laughs> malxiil malxiil malxiil pexe amul yàccaara la fi sës su ëllëgee yàlla di wax a yow ana la taxoon nga bàyyi ma ngeen ne ko diw la woon mu ne diw man ngeen ne ko yow la woon mu ne noonu yàlla ite nii lam attaxis fulaanan xalila yàlla bu démb doon tey duma jël diw muy suma xarit diw mi lu ma dugg mooma ci dugal yàlla waa ji ne ko day fen kii masumaa gëm xawma ko sax masumaa gëm xamuma ko sax jeex na ota gis nga yàlla ku yebu rekk jox ko sa bopp ku yebu jox ko sa bopp ku yebu jox ko sa bopp àdduna moom neexewu ko naqarewu ko ba daal ko yebu doo ko jox sa bopp ndax daal moom moom daal moom ko yebu jox ko sa bopp koo mën a yaakaar tey mu nga màggeta màggeta màgget day gën a màgget rek bët yaa nga naqadee naqadi tey gën a naqadi rek loxo yaa day gën a naqadi rek tànk yaa nga gën naqadee naqadee gën a naqade rek lépp day naqade te du neex abadan su xëyee naan ay calmant ñu sedd quelque temps mu sawar quelque mu des quelque temps mu méttiwaat quelque temps kañ yàlla rek moo fi ne moo tax ko yow bu jébbal ko sa bopp waaw man daal li ma xam li xam mooy jébbal leen seen bopp yàlla man de ganaaru kenn kenn kenn nenu ma mukk ñu xalaatuma ko sax waxuma it ci turu kenn kenn sama tur rek kenn ma booful parce nanga ko dof la fa la ndof yam bàyyi yàlla topp nit bàyyi yàlla jàmm nit bàyyi yàlla nit di sa di sa affaire non duma ko def duma ko def duma ko def duma ko def moom kay li may man kay nañ ànd man ak yow jaamu yàlla manuloo jàmm yàlla ma baala fa man jaamu ji yàlla keneen ko gis leneen téyel moom lépp dana leer keneen ko gis leneen téyel lépp dana leer moo tax gis nga bàyyi xel sa borom rek bàyyi xel sa bopp rek bàyyi xel itam ñi la topp ñi la topp rek nit daal bu fekkee ne bàyyi na xel boromam bàyyi xel boppam bàyyi xel ëllëgam lu mu def dana jaar yoon su fàttee tey fàtte ëllëg fàtte gannaaw ëllëg lu mu def erreur la amoon naa benn góor bu ñuy wax Pam ñan mu daan wax ne kilifa goo gis kilifa goo gis ñu ragal koo wax dëgg nee lu mu def erreur la lu mu wax erreur la kilifa goo gis kenn ñemewu koo wax dëgg nee na lu mu def erreur la lu wax erreur la waaye ku ñu ñemee wax dëgg nag loo def du erreur loo wax du erreur soo bañee wax erreur bañee def erreur dangay wax dëgg waaw waaye kilifa koo xam ne maara day taali nit ñi ñemewuñu la lu la neex ngay def lu la neex ngay wax lu la neex ngay tëral ñu ne la woy baax na mais àdduna du noonu àdduna du noonu waaw àdduna du noonu moo tax daal kenn ku nekk ci ñun na nafar ëllëgam kenn ku nekk ci ñun na bàyyi xel ëllëgam kenn ku nekk ci ñun na sédd soo ko defee danga am jàmm soo ko deful du am jàmm kon nag nangu ne eh, lu la dal yàlla la bu neexee yàlla la su naqaree yàlla la soo amee bànneex yàlla la soo amee naqar yàlla la soo ko defee danga féex soo ko deful doo féex kon nag nañu góor góorlu liw leer mooy man mii